mbokk yeeg xarit ci internet yi yéen ñi safoo di ñoo topp fii ci Dakar Net jàngeen jëf ci ànd bi comme ni leen ko daan defalee tous les samedi ñu dikk ak yéen ci ay xibaar yi nga xamante ni moo gënoon a fees ay bés yu ñu génn tey nag bés bi jot na ñu ànd ak yéen ngir dégtal leen li nga xamante ni moo fi gënoon fees ci biir semaine bi ñu dooree ko ak li nga xamante ni mooy coowal Ousmane Sonko bi nga xamante ni niki ay bés moom la ñëpp di waxtaanee li nga xamante ni nag mooy boobule coow benn mbir da cee dooleeku niki démb di ki nga xamante ni mooy maître maître Dior Diagne di avocat bu mag eh, eh, réew mi moom nag ñu daal di koy eh, tudd ci bile mbir ñu jàpp ni moom mi nga xamante ni mooy maître Dior Diagne moom moo bindal ki nga xamante ni mooy Adji Sarr boobile plainte rax ci dolli moom moo ko wutaloon li nga xamante ni mooy permis de circulation ci ay heure couvre-feu loolee sax ñenn ñi dem bay wax ni moom mi nga xamante ni mooy maître joor Diagne moo ko làkkoon ci biir këram ci jamono yi nga xamante ni ñëpp ñu ngi doon laajte fan la Adji Sarr daal di féete moom mi lee di maître Dior Diagne daal daal di génn daal di xamle ni li ñuy wax ci réseau sociaux yi jëm ci moom amul benn yoon mu loolee sax daal di tax mu mer bay bëgg a dee daal di génn xamle ni kookee génnee boobule information yoon dina ko teg loxo ndax daal di nay déposer benn plainte. ñu des ba tey ci boobile mbir jëm ci usmaan Sonko ba tey ak Adji Sarr ñi nga xamante ni ñoo doon manifester ni kii lundi bi ñu génn fële ca buntu këru Ousmane Sonko ñoom ñooñee nag yoon ginnaaw bi mu leen tegee loxo ba yóbbu leen fële nga xamante ni mooy sa Cap Manuel ñu jàpp ni jamono ji ñoom lañ leen di toppee dina gën a métti lool ndax dañoo nar a criminaliser li nga xamante ni ñu jàpp ni ci yooyu les manifestations jot nañoo teg loxo lu toll ci huit personnes fële ca na ndax ñoom itamit dañ doon amal foofu ay manifestations yu metti lool fii nii ci Ndakaaru nag ñu jàpp ni jot nañoo teg loxo lu toll ci dix-neuf personnes ñoom ñooñee nag yoon ginnaaw bi mu leen jàppee seen dossier fas yéene nañu ko criminaliser maanaam seen mbir fas yéene naa gën a metti lool ndax liñ leen di toppee dafa diis muy euh, association de malfaiteurs maanaam booloo di def ay ñaawteef sàkku alalu mbooloo ak alalu nguur gi loolee yëpp toftal ci xooxatal takk der ñoom ñoo ñooñu nag seen dossier jamono ji diis na lool xam naa daan ci dikkaat fii ak suñu ay yeneen jotaay ñu dem ca réew mu France foofe nga xamante ni kii di Babacar gay nekkoon ndaw réew mi te mu féete woon foofee ca réew mu France moom mi nga xamante ni nag jotoon nañu ko faat foofe ca réewum France dossier nag àttekat bi daal dina koy génnee tegaat ko ci table bi loolee njabootam toppoon boobule dossier ngir yoon daal di def liggéeyam yoon boobee nag ginnaaw bi mu defee liggéeyam daal di nay génn xam le ni kookee di takk der bi tiire woon Babacar Gueye ci yoonam la nekkoon ndax dafa def li nga xamante ni moom la ñuy wax légitime défense maanaam da doon aar boppam loolee nag daal di tax waa parquet ba daal di bàyyi boobilee takk der toppeetuñu ko dara jamono ji ñu fàttali leen ni Babacar Gueye nag fii la dëkkoon ci réewum Sénégal fële ca Pikine moom nag ginnaaw bi mu nekkee foofu ca réewum France ci atum 2015 lañ ko faat ñu àddu ci leneen jëm ci wàllu góor jigéen organisation bii di waa Jamra nga xamante ni dañuy xeex loole ci génn yu njëkk yi nga xamante ni kii di Joe Biden di président wu Amérique daal na koy amal moom moomee nag di Joe Biden ci ay génnam yu njëkk daal dinay fësal li nga xamante ni mooy mbébétam ngir jàppale ñi nga xamante ni ñooy ay góor jigéen foofee ca États-Unis ak ci àdduna wërngal këpp looloo nag daal di tax Mame Makhtar Gueye ak ay àndandoom te ñu bootu ci kuréel gi ñu tuddee bañ gàcce daal dee taxaw temm ngir araftu ki nga xamante ni mooy njiitu réew mi yi Sall ngir mu daal di gën a bàyyi xel ni ñoom duñu ko nangu tey duñu ko nangu ëllëg mbirum góor jigéen du am fii ci réewum Sénégal loolee tax nag ñoom ñu di ko ñaax ngir mu gën a dëgëral ay tànkam ci bañ bi nga xamante ni dañu koy bañ mbirum góor jigéen fii ci réewum Sénégal buñ ca noppee ñu daal dee dem fële ca banlieue ba nga xamante ni waa police daal di nañ fay def liggéey bu am solo ca foofee nag ci biir banlieue bi jot nañ fa teg loxo lu toll ci deux cent un personnes ginnaaw bi nga xamante ni daal nañ fay def lu ñu jàpp ay délit ak ñàkk wàccook yoon ca ñooñee ca deux cent un personnes yi nag ñu jàpp ni soixante seize ci ñoom yoon teg na leen loxo ngir ñàkk a li nga xamante ni mooy couvre bi ci jamono ji ca ñoom ñu daal di leen di teg loxo ngir ñàkk a wàccook li nga xamante ni mooy mesure barrière yi rawatina li nga xamante ni mooy solub masque bi nga xamante ni jamono ji ci réew mi dañu ko def obligation maanaam mënut a ñàkk ñoom ñooñu nag ci loolu lañu leen jàppee ñu jàpp ni ñaar ci ñoom bi tamit daal dinañ leen di jàppee ak li nga xamante ni moom la ñuy tere ci réew mi di xeetum yàmbaak na seen ca boobilee opération sax ñu jàpp ni jot nañ see jàpp oto yu baree bari ak ay moto jot leen taxawal bu ñu weññee nag li nga xamante ni mooy amande ya jot naa toll ci deux cent mille ci suñu ay koppar ñu tëjee ko lu doy waar lu doy waar xewee fële ca clinique euh, Cheikh Anta Diop foofee nag ki nga xamante ni mooy seen ambulancier ba moom moo fa daal di def ab ñombe moom nag dafa dal di sàcc li nga xamante ni mooy xaalisu comptable ba ginnaaw loolee nag ci la ko yoon daal di teg tegee loxo ba àtte ko ci ñaari atu kaso waaye ca ñaari atu kaso yooyu nag benn weer dong la ci nar tëdd moom moomee nag di MD ndax joxewuñu turam MD rek lañ ci mën a jàpp yoon daal na koy teg loxo ba àtte ko waaye ñu jàpp ni moom moomee nag soixante quinze mille dong la fa jot a jël ci boobile comptable moom nag caméra de surveillance yi nga xamante ni moo nekk foofu ca biir clinique ba moo ko daal feeñal ca kanamu àttekat ba nag bañ ko laajee lu waral loolu dafa xamle ni boobile xaalis nag da koo jëloon ngir daal di ci faj ki nga xamante ni mooy soxnaam ndax dafa feebar ñu jàpp ni kookee di MD liggéey na ca biir clinique Cheikh Anta Diop lu toll ci 15 ans mbokk yi foofu lañuy ñuy yemandi ak yéen euh, tey ci bile jotaay di leen jaajëfal ci ànd bi di leen jox euh, dig samdi bi ñu dëgmal waaye laata ak loolu des leen di wéyandi ak ay programme mu Dakar Net jaa jëf